Euh, salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen ñuy seetaan dal leen ak jàmm seen émission bi nga xam moo di euh, penc mi comme ni ñu koy waxee saa su nekk rek euh, plateau la boo xam ne képp koo xam ne wóolu na xam-xamam ñoo ngi lay ñoo ngi lay dalal ah tey ma dalal kenn sama gars yi tey maa ngi biir seen louis TV nag dalal benn booy bu waane <laughs> waaw muy responsable aussi tamit di directeur technique en même temps gérer li nga xam moo di production bi ak diffusion yi muy Nooba wala ah ñaar yëpp benn la rek. bàyyi la nga nuyu ñi xam ne lay seetaan kon. waaw salaamaaleykum maa ngi siyaar euh, internautes yi ñuy seetaan di leen jaajëfal bu wér man moom maa ngi nii Ousseynou Noba Ndiaye la tur bi di directeur production et diffusion Saint-Louis TV. ok donc euh, euh, ni nga ko waxee léegi leer na muy direction mais est-ce que mën nga mën nga mën nga lu gën a leeral exactement lan nga biir Saint-Louis TV. waaw Saint-Louis TV tout ce qui est production. suis le directeur mais dafa am ñi nga équipe la quoi en fait Ñom lay and di liggéeyal Motax man may man nañu jiital pour ma doxal ko mais maintenant nous ni ñu ñëpp ay jiit lañu quoi man no lay doxalé sama mbir mais du tax dinaay dégganteeg lépp loo xamante ni ci côté production la quoi en fait ak diffusion pour nous réaliser bien affaire pour ñu mhm. war ko dugal nit ñi gis ko ma maa koy moom koy gérer. ok lu tax ngeen taxawal li nga xam modi Saint-Louis TV. waaw Saint-Louis TV li tax ñu créer que dañu nekk ici au niveau de Saint-Louis et que l'information ne passe pas qu'il faut quoi en fait. nit ñi ñi ngi mais information bi nous wara jalé a mu quoi légui ñu nek ay jeunes yu dynamique yo xamanteni deug la ñi ngi jang amna quelques expériences bo xamanteni xamante mën nañu taxawal ben affaire c'est la tok waaw man Cheikh ñang comme yow <laughs> ak Bilal Doucouré yenn gars yo xamanteni ñi ngi ci biir ñu tok waxtaan xam nga trouver solution ba taxawal li tay nga xamanteni moy Saint-Louis TV ok mais ba ngeen koy taxawal sen TV doon na li nga xam tay bien vrai que yéen dañ leen war encourage parce que ay boy boy boy boy am la ngeen aussi tamit euh, def ngeen li nga xamni euh bu njëkk bu ko daan gis day fekk ni am doole ñoko ko doon def tay ngeen nek ay jeune pour def ko mais pourquoi ngeen choisir li nga xam ne di turu Saint-Louis TV. wa li tax ñu jël Saint-Louis TV ça a été trop compliqué. Hmm. parce que Saint-Louis TV deug la Saint-Louis TV mais. Ndar Ndar Ndar Ndar TV la naroon tudd. mais juste que y avait quelques choix entre Ndar TV Ndar Média TV bi mu génnee xam nga. Mhm. ñi nga xamante ne dëgg la ay concurrent la ñu dañuy nekk ci kii bi milieu bi di liggéey. Mhm. mais pourquoi pas ñu ñu ñu changer nom mhm. parce que boo nee Ndar Média TV Ndar TV dafay mel ni presque benn la quoi. donc moom Ndar TV la tuddoon avant. waaw Ndar la Ndar ko. Nous la ñu pour def ko mais boobu dara dara génnagul choses. Hmm. bi ñu demee ba xam bi bu Média TV. Hmm. on a préféré changer le nom. D'ailleurs, on a on a trouvé des solutions parler avec euh, l'équipe. Ducré Bilal m'a dit pourquoi pas Saint-Louis TV Et il m'a proposé ça man ko ça n'est que notre boo ni mu joxe la ko mu joxe quoi parce que Saint-Louis boo nee Saint-Louis bu mhm. du Saint-Louis boo nee Saint-Louis département de Podor y a Dagana et tout yooyu si Saint-Louis la bokk quoi en fait. ok comme ni nga ko waxee nii y a tey da ngay wax département Podor et cetera mais est ce que waa Podor si gis seen bopp Matam Dagana. waaw jusque il paraît aussi tamit yéen bëgg yem kese Saint-Louis quoi. non ñu nu yem kese Saint-Louis Saint-Louis kese ngeen yem. non dëgg la ah, <laughs> tout début est difficile quoi en fait. Ah. nii la ay xale la ñu ngi soogay tàmbali yem fii la ñu yemagum en fait. ni ni basé au Saint-Louis di nànk-nànk mais bëgg nañu élargir affaire bi yóbbu ko Saint-Louis yóbbu ko en fait. Euh, au niveau national international niveau national ba dem ba yenen régions yi comme Dakar Thiès Louga. Essien Kolda Ziguinchor tous tous ces tous ces régions là sentir que Saint-Louis TV existe. Mm-hmm. Et Saint-Louis TV nous na loo xamante ni nit ñi mën na fay rechercher information mën nañ tout ce qui est euh, émission bo xamante ni nanu koy def pour la ville de Saint-Louis dañu koy def euh, mais bëgg nañ ko yaatal di dem ay Podor di dem tamit ci côté Dagana bi parce que ñooñu Saint-Louis lañu ñu bokk. ci projet yooyu quoi. ñu ci projet yoy té ñooñu tamit dañu wara a gis seen bopp. ci Saint-Louis parce que bo xolé tamit euh deug la làkk yi bokkul parce que bo xolé ñun li ci ëpp wolof la ñuy mais bo démé côté bop ñi ñi ngi euh tukkuleur tukkuleur bi ak pël bi motax ñu bëgg leen intégrer. ci biir Saint-Louis TV xam nga bu ko defee euh, information bi da relation yi tamit dina dina jàll quoi est-ce que woon ba ngeen taxawal saint bi nii ngeen ay jeunes waaw ça a été trop difficile ça ngeen nekk ay jeunes gëm seen bopp créé nu mel loolu sax maa ngi ciy remercier Habib Seck ak Ousseynou Diop bu baax a baax parce que ñoom tamit nekk nañu ci grand yoo xamante ni jàppale nañu ci côté boobu ay ñoom Baye Diagne xam nga ñoom nekkoon ci affaire bi métti woon na trop waaw métti woon na ay Ismaïla Kara mais ñu dem di ci xeex di ci xeex ba yàlla def lii mu def tey. mais dëgg la ñu ngi soogay débuté quoi métti na ñu leen di jàppale instant bi quoi. waaw pour le moment nii ken nii kenn jàppaleeguñu ñu ñooy dem ak suñuy propre ana ana ana gars yi nekk ndax autorité yooyu noonu autorité yi dëgg la def ay jéego dem si ñoom non def nañu ay jéego parce que kenn ku nekk nga xamante ni euh, xam nga mbirum mbirum chaîne la quoi en fait bëgguñu basé wu ci ci ñi nga xam ne gars yi que dëgg la gaa gars yi mën nañu jàppale mais ñu dañu bëgg suñu suñu yëfu bopp en fait mën nañu liggéey bu ñu amee benn affaire ñu proposé leen pourquoi pas mën ko def ñoom ñu gis seen bopp ñu ñu gis suñu bopp mais duñu dem ci kenn di ko demander aide quoi en fait mais ñun dëgg la ay jeunes lañu mais am nañu joomu liggéey tamit mm-hmm. bëgguñu toog di seetaan eh, non loolu moom loolu moom gars yi war nañ ci bàyyi xel quoi a baax parce que tamit euh, mooy li may faral di wax rek euh, ñu bëri leen war a invité yéen ñi nga xam ne nekk ay jeunes mm-hmm. ñu jàmbaaru créer nu mel parce que en général mooy li ma saa su nekk rek boo demee tey si yeneen dëkk yi pour nga taxawal fi genre télé yu mel nii il faut nga am doole donc yéen su nga xam-xam bi nga xam ni da ngeen nga xam dañ ñu nga ko waxee nii ñu nga xam ne yéen a koy euh, taxawal pour ñi nga xam ne ñoo di euh, sénégalais yi ñi nga xam ñoo di euh, africains yi ak ñi nga xam ñoo nekk si diaspora waaw am na nañu benn projet long terme boo xamante ni moom lañu moom lañu prévoir d' sax sax man ak Bilal rek ñu ngi ci euh, moom mi nga xamante ni moo yor dinaa booy booy bu waanal nag. waaw waaw waaw booy booy booy la mais booy bu <laughs> yeewu la tamit booy bu mën li muy def. Mm. mais mun xàññu. <laughs> ci loolu sax ñi ngi ñi ñi ngi dërma benn projet long terme boo xamante ni ñun Saint-Louis danu danu arrangé lu bëre parce que dëgg la. ñu ñooy Saint-Louis TV mais Saint-Louis TV am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi ci ginnaaw te bëgguñu feeñ boo xoolee am na ñoo xamante ni ñu ngi ci ginnaaw comme boo demee Hitbox ah boo Hitbox studio ñi nga xamante ni ñoo def collaboration bi di liggéeyandoo ensemble ñoom jaañ al Almuxtaar et El Hadji Malick e tout ñi nga xamante ni tout le temps bu may liggéey ñoom dañuy présent gars yi dañuy présent la ciy jàpp di taxaw ak man bu tournage amee bu ne ma wës boo demee boo defee defal lii lii ak lii ak lii mu leer na la am na ñoo xamante ni ñi ngi si di góorgóorlu parfois nga def benn affaire am ñu la woo téléphone ni la lii ak lii ak lii mais si loolu moo nu mën a permettre ñun tamit ci ginnaaw ñuy ñu ñuy créer ay affaires yoo xamante ni dina nga mën a proposer population bi mm-hmm. parce que ñun population bi moo nu tax a jóg Saint-Louis moo nu ñor li gars yi di def mënoon ko def jàng am suñuy jaasa dem Dakar toog mais ñun dañu prévoir toog ndar jéem innover indi révolution ici à au niveau de Saint-Louis bi nga xamante ni da ngay da ngay ngay xam ne fii courant bi passé wul ni mu war a passé. en fait jàpp rek quoi. ñu jàpp ci xam nga yeneen jeunes yi nga xamante ni ils sont ambitieux fekkee am nañu loo xamante ni tamit mën nañu ko proposé ñu liggéey ñu liggéey ñun terewuñu kenn ñëw Saint-Louis TV. képp koo xamante ne am nga projet yéeneenu ko boo ko indee ñun dañ ciy taxaw parce que c'est yàgg naa koy wax mais dans la vie il faut être euh, professionnel mm-hmm. parce que ñun ci cadre boobu la nekkee nu tëb tëb rek nga ñëw nii da nga bëgg a dugg Saint-Louis TV kon bu ko defee sax ay affaire yu waaw kay dafa am ay yoon xam nga bu ñuy Saint-Louis TV Saint-Louis TV la rek waaw damay ñëw dugg nii proposé comme ndax gars yi bu ñu bëggee dem TFM wala bëgg dem ci yeneen télé dafay metti parce que foog am yoon yoo jaar mm-hmm. mais léegi na naan comme que Saint-Louis TV day yomb xaaral mu ñëw noonoo ci yoon yooyu lan ne ay xale lan ne mais xam nañu procédure yi am nañu ay papiers yoo xamante ne moom ngay jaar parce que dañu am ay papiers yu légal yi wan yi wane ni ñun war nu mën a génne information quoi mhm. war na nañu dugg ci biir dëkk bi li soxal dëkk bi yëpp ñu koy wane li nga xamante ni nit ñi tamit danañ danañ ci mën yëg seen bopp ñu leen koy jox ok mhm. donc moo sànq yaa ngi koy sa biir wax am na yenn chaînes yi nga xam ne jamono ji ñu ngi fii biir Ndar donc est-ce que du indi tamit parfois yenn concurrence seen biir non ñun ñëwnu pour concurrencer ñun ñëwnu pour concurrencer gars yu bëri na ñi ñëw naa ma waaw ñu chaîne bi ma la ñëwul parce que loolu yëpp ñoo ñu ñëpp taxawal affaire bi ndara leen tax a jóg kon bu leen dara taxee da leen di appuyer si lolu parce que ñun ñëpp ben la boo xoolee ñi tijji yéene ay ndar média xam nga euh, global events ñi nga xamante ne ñoo taxawal affaire yi yooyu yëpp ñun ak ñoom benn lanu ñooy nekk ensemble. est ce que est ce que est ce que courant baa ngi daw quoi link bi. link bi link bi ni mu war a dawee daw ko parce que kenn ku ne ndar loolu mooy problème bi da ngay créer benn affaire nit yaakaar da nga ñëw pour concurrence ak moom te fekk na du loolu ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi. dañuy soxlawante dañuy nekk ci biir town bi kii day soxla dara mu ki fekk si ka si loolu keneen tamit soxla mu fekk si loolu parce que ñun ndar loolu la ñu xam quoi. mais bu ñu jël loolu ñu amoon dëgg la ñun suñu affaire bopp la parce que ñun doomu ndar ñoo ñoo mel noonu. Mhm. am na dëkk yu bëri Dakar boo fa demee gars yi nu lool. ku nekk ak sa bopp ngay demal mais ñun dañuy jàppalante ba malgré ñoo bokk dañuy demalante.

mën a mën a sóobu parce que tamit je pense que bu ñëpp bokkandoo di jàpp lay mhm. gën a dëgër que kenn buy jàpp fii kii di jàpp fii est que jotul tamit ngeen jéem a xool ngeen gisante ñëpp télévision en ligne nekk rek amul gor bopp ki amul gor bopp ki yéen a bokk ah d'ailleurs sax loolu ñun euh, bañu na ko en fait parce que boo xoolee am na ñoo xamante ni dañuy ñëw parfois duñu solliciter si suuf ñu leen di jàppale quoi en fait mais ñun li ñu gënaloon mooy Saint-Louis TV nekk benn chaîne boo xamante ni ñëppay ñëw bokk ñu taxawal ko ñu ñëpp ñu liggéeyandoo parce que am na ñoo xam ne ñi ngi créé mais dëgg na doole yi yamuñu quoi en fait. da nga am doole ah. ñu amuñu doole amuñu doole sax <laughs> amuñu doole dañuy sant yàlla bu baax nañuy sant. waaw parce que ñi ñi ñi ngi def nànk-nànk quoi bëgg nu ñëw rek sóobu parce que. boo ñëwee soobu mën na la yàq lu bare parce que ay xale lañu mais tamit xam nañu baax fu nu jëm mën nu ñëw rek euh, démarrer ñëw jël gars yi ni leen kaay leen ñëw leen. dañuy dem xool li nga xamante ni moo nu doy ñun en fait ñu jël leen ñooñu ak léegi ndar moo bëre ay jeunes yu talentueux yoo xamante ne dañu mën seen liggéey mais juste que nii ñuy taxawalee mbir yi moo moo moo kiiwul quoi. parce que dañuy taxawal benn affaire. Mm. première année affaire bi am ampleur kii mais après du am continuité ñu bàyyi mm-hmm. euh, mais ñun duñu bàyyi ñun xamuñu loolu parce que boobu ba léegi ñi ngi taxawal affaire bi ñi ngi ciy nekk te incha allahu rabi ñi ngi ñaan suñu borom mu dimbali affaire yi gën a gën a non ngi gërëm aussi tamit gaz moom moom moom moom gis nga nee na cinq <laughs> moom mi ngi si ginnaaw donc moo yore programme Saint Louis TV moom moo nekk ci ginnaaw ñoo ngi koy char bu baax ak Bilal moom uh-huh. directeur création Saint Louis TV ay booy jàmbaare waaw ñu ay frères yi nga xam ne bokk ndey bokk baay di job lu am solo donc aussi tamit bëggoon nañu gis bëggoon nañu xam parce que euh, Saint-Louis yi bëriwul lu ñu koy gis ay programme comme ay manifestation yu bëri di am nga gis seen TV parfois information yi nga gis seen TV. dëgg la lan la lan la da ngeen amul doole wala xam-xam bee des wala lu mu fa demee noonu. Eh, du loolu parfois lu lu. wala la non pas waaw waaw yooyu tamit yëpp mi ngi ci <laughs> yooyu ma ngi ci parce que boo xoolee tamit dañuy wax dëgg yàlla tax boo xoolee yi fii kenn ku nekk dafa am liggéey boppam. waaw dëgg la ku ne day am liggéey boppam mais parfois sacrifice la ñuy def. parce que boo xoolee dëgg la ñun dañuy jël parfois damay toog classe. je salio au passage sa sama copain Petit Doucouré <laughs> mu naa ah, ma nooba yow da ngay bàyyi saag bi fii classe daal dem daal di dem ci tournage parce que parfois. amour la quoi amour bi ngay jox affaire bi la ko en fait. Mhm. da ñëw émission am nga nekk classe toog di jàng nga jékki saay def benn sacrifice da ciy baax quoi. Mhm. lépp da nga koy def rek. parce que Saint-Louis moo la ñor quoi. mais taxul ñu ngi jàng ñu jàll fu nu est-ce que est-ce que si pour pour jéem a indiwaat programme bu tegu comme comme comme dégg naa léegi jot ngeen taxawal tamit euh, directeur programme bu bees waaw indi nañu directeur programme gas mi nga xamante ne boobu ba léegi waaw mi ngi ci waaw mi ngi ci mi ak mi ngi bu baax baax d'ailleurs sax léegi xam nga boo xoolee li tax affaire bi di gën dox waaw noonu parce que courant bi mi ngi paas parce que réseaux sociaux boo xoolee dëgg la man maa ngi animé quoi mais depuis lors bi moo ko bi mu ñëwee indi programme am ma boole ko ci affaire yi ñu gën a liggéey affaire yi courant paas parce que boo xoolee sax dëgg la li bu njëkk li ni courant bi waroon paasee paase wu ko. parce que dëgg la liggéey kenn ku nekk bu ko joxee àqam day dem mais bu fekkee ñii nañuy dañuy jàpp ñii duñu jàpp day xaw a difficile nga nekk au four et au moulin ay deux trois quatre personnes bëgg a liggéey liggéey boo xamante ni trente cinq personnes ñoo koy def dafay xaw a métti moo tax dañuy sant yàlla bu baax a baax ba nu demee ba toll fii nii ci ak loolu nu nu nu commencé affaire yi quoi mais mais ngeen jàppale aussi tamit si li nga xam mooy information yi mhm. ñu koy mën a jot au temps réel quoi c'est important aussi tamit quoi gars yi di mën a gis euh, luy xew parce que bu nee un TV rek day dégager automatiquement lépp luy wàllum information donc yow dañ koy sàkk aussi tamit ci yéen ñi nga xam ne yéen ci waaw surtout ça ba pare boo xoolee slogan bi ñu ko def toujours au japon de l'actualité ça veut dire que actualité bi tout le temps dafa war di di di di di di passé mhm. te incha allahu rabbi daan daan ci gën a taxaw daanu gën a taxaw ci loolu ba courant bi passé bu ko defee Saint-Louis TV ñëwaat ci yeneen anam ci yeneen gis-gis incha allahu rabbi ana waa saint TV. ah waa saint TV ñu ngi fi ga yaa ngi nii. xam nga lu tax lu tax indiwoo leen. ah gars yi ñu ngi fi gars yi ñu ngi fi. ok donc donc donc gaz mi ngi may mi ngi may mi ngi may signaler que euh, temps bi dafa dafa dafa jeex. Mhm. mais bëggoon naa xam aussi tam ban message ngay lancer en tant que tamit euh, ngeen doon ay jeunes tey euh, message nga war a lancer jeunes nga xam tamit dañu war a amu fitu créer nu nu mel parce que li créer yu dëgg fa neex yàlla mooy li may wax rek yoon la aussi tamit ngeen ñi leen jàppale di invité ngeen waxtaan gars yi xam ni kat am na boo am fit yoo xam ñu ngi taxawal dara gars yi aussi tamit autorité mi leen jàppale donc ban message nga leen seetaan waaw message bi may lancé mooy képp koo xamante ni jeune nga Saint-Louis tax la jóg parce que am na ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi nekk ci beneen wàll bi ñi ñun dañu nekk ci côté multimédia bi xam nga pour passer l'information am na ñoo xamante ni ñi ngi ci beneen domaine mhm. ñu ngi leen di wax képp koo xamante ni da yëngu ci benn affaire ñi ngi lay ñaanal nga nga nga nga dem ñun moom ñun Saint-Louis TV waaw nu benn jeune en fait képp koo xamante ne mën nga ñëw ñu liggéey ak yow dans les domaines ñi ngi fi waaw dañuy dañuy jàppale jeunes yi parce que ñun ay jeunes lañ. Mhm. li tax li tax courant bi passé ba li taxaw bu doon man kase du dem waaw parce que dafa am ñeneen ño xamanteni dañu nekk ci biir am ñeneen ño xam ne ci ginnaw dinu di di di def liguey bu am important bu am importance ci affaire bi motax mo bëgg sax lancer message bo xamanteni ñi nga xamante ni jeunesse Saint-Louis on est là pour vous toujours et encore parce que bëgg nañu benn link boo xamante ni nii ci vacances yi créer benn affaire boo xamante ni non dina nekk lu spécial mais yooyu ay surprise la xam nga sama sama sama sama sama naataango bële bi laa dukkare mais ñi ci ginnaaw di ci liggéey bu ko defee gars yi gën a yëg seen bopp ci affaire bi quoi loolu laa amoon ci comme message bu may bu may lancé jeune jeunesse Saint-Louis donc ñoo ngi rafetlu jotaay bi bu baax a mhm. baax di kontaan aussi sa sa teewaay di wax ni rek yéen ñi nga xam ne yéen ñi seetaan mooy li ma wax saa su nekk rek plateau la boo xam ni képp koo xam ne sax xam-xam wóolu nga ko rek mën nga ñu toog koo xam ne rek war nga fi mën wax ñooñu toog parce que plateau bi pour ñëpp la te aussi képp koo xam bëgg nga participer si émission bi wala nga am loo bëgg leeral mën nga woote ci numéro bi nga xam moo nekk suuf 77 528 61 95 77 528 60 95 moom ngeen gis noonu suuf bu ko defee bu ngeen ci wootee rek daan leen woo ñu ama yéen émission insha allah képp ko am loo jàllale aussi mën nga si mën di gërëm bu baax a baax gaz El Salvador moom mi nekkoon ci euh, caméra bi nekk aussi ci bi di bu baax Bilal bi nga xam mi ngi ci woon mi ngi woon ci euh, tamit di leen jox dig ak daje si yenn numéro insha allah jaa ngeen jëfati